alors euh, Diamane. ñu ngi lay fay. Amira fay naa leen. initiative bi ngeen def bu ñëpp apprécier velo bi ngeen jël euh, jox ko koo xam ne day dox 14 kilomètres loolu marqué na ñu bëri initiative bi nan leen ko nan de juddoo. ba euh, vélo boobu ñu mayee keroog à un jeune un jeune garçon boo xam ne il a d'excellentes notes à l'école mais il a pas les moyens de se déplacer correctement loolu c'est juste un exemple mais c'est c'est une initiative de l'association Axil qui vise à améliorer les conditions de d'études de tous les enfants yi nga xamante ni dañuy jàngi di dox wala seen école dafa sori et ils ont du mal à atteindre euh, leur école et tout donc noonu la demee c'était en association avec euh, le mouvement Axil en fait. mais ba ngi gisee xale boobu seen yaram dafa daw lan ngeen ressent. non mais c'est normal que affaire bi touché ñu parce que bu fekkente ni que le fait que muy dox 14 kilomètres par jour terewul ko mu am les meilleures notes de son école euh, c'est le premier qui mériterait un cadeau en fait. loolu moo tax on a donné l'exemple avec lui moom lañ jëkk kii moom lañ jëkk offrir velo noonu la demee waa. corona bi jeex nga corona. ah corona bi dafa jeex. bul fàtte ni moo ngi fi ba tey. <laughs> sama masque mi ngi sama poche mi ngi sama poche. alors jàmman jàmman gis nañ ko génn na album boo xam ne ñëpp ko apprécier yow la yow lañ la ñuy xaar si ah, man maa ngi ñëw léegi de xaaral maa ngi yoot mi léegi ma yegg si incha allah. on est en compétition à euh, élément en fait on partage. mais ñun bi dafa mel euh, mais bien sûr loolu dafa jar laaj waaye yéen kii kan lay waxal. moo ma jaaxal. <laughs>